actualité muy bloc d'information bi nga xamante ni ci télévision Futur Média 19h lay tàmbali ba 21h boole ci journalu bi nga xam dañ koy faram-fàccee ci wolof ak bi nga xamante dañ koy def ci kàllaama nasaraan tey nag euh, sunu jotaay bu njëkk ñu ci ànd ak euh, sunu kilifa colonel Abdou Aziz Ndaw nekkoon euh, nekk gendarme bu nekk à la retraite nekk consultant di xel di xelal aussi ci biir réew mi ak ci bitim réew ci wàllu sécurité ci wàllu kaaraange tey moom la ñuy dalal fii ci plateau bi colonel Abdou Aziz Ndaw ñoo ngi lay nuyu. Ah, leen di fay. Mm-hmm. di remercie aussi TFM c'est la première fois que je vais à alhamdulilah merci nous sommes très alors. di ci ànd aussi ak suma grand yow Papis ñoo ngi lay nuyu. ça jërëjëf Pape Djibril di nuyu euh, ñiy seetaan di dalal également colonel bi. di wax ne également nous aussi on est honoré de vous avoir sur mhm. colonel euh, question bi ak ñëw bi tey jii li ko sabab mooy li nga xamante ni xew na Fatick ñu gis ko mooy lu ñu ne ñoo ngi xaar ñuy préciser ne ngi xaar rapport d'autopsie bi ci kooku nga xamante ni dañ fa ñàkk bakkanam ci lu ñu wax ne opération de sécurisation boo xamante ni way takk der ñoo ko doon mëne foofu waaye lu jiitu loolu di am Fatick dañoo gis li xew Saint-Louis keroog tamit te yàlla def ci sutura ndax lu ne mënoon naa xew technicien ban jàngat nga ciy njëkk am. waaw xam nga police gendarmerie dañ nekk ay forces yoo xam ne dañ leen jox doole dañ ñoom souvent ñoom ñoo mën def ay atteinte aux droits de l'homme souvent état bi fu ñu ko attaqué su droits de l'homme rek ay mbirum police la wala mbirum gendarmerie. Hmm. parce que booy doxal yoon tam am doole pour doxal yoon dafa am ay procédures yooyu doxalee yoon et jusqu'à présent. mënuñu wax police moo tooñ wala tooñul. il faut que d' abord mu am benn enquête impartiale. am autopsie nga xam ne ay médecins ñooy wax waa ji lan moo ko rey après mu am benn enquête impartiale boo xam ni police moo koy def wala gendarmerie moo koy def wala ay magistrats ñoo koy def pour mun wan lan moo xew. tant que xamuñu lan moo xew tam. rapport de prononcé aussi mhm. day métti. Papis li xew Fatick. waaw ba conducteur Jakarta bi ñàkk ci bakkanam. waaw boo ko gisee ak li xew Saint-Louis ban commentaire la léegi. waaw dañuy jàpp ne rek dafa am genre confrontation bu bu bu bu métti bu am mhm. euh, diggante force de l'ordre yi ak population yi parce que mënoo beddi. Euh, waa Guet Ndar mm-hmm. wala nga beddi waa waa Kaolack mm-hmm. c'est un Sénégal dans son ensemble mm-hmm. muy benn ensemble unitaire le constat c'est qu'il y a beaucoup de violence il euh, li si wax euh, jàngat benn bi moom mooy que ne dafa benn couche sociale mooy ñi dawal Jakarta man dama bëggoon ñu taxaw ci loolu parce que dafa am ay récurrence ay ñuy très souvent di am Euh, aju ci takk der yi. amoon na Thiès d'ailleurs moo xam gendarmerie la waaw moo xam gendarmerie moo xam police la. Mhm. le ce qui est établi comme constat aujourd'hui mooy en tout cas monde Jakarta xale yi si yëngu di ay doomu sénégalais am lañ de sérieux problèmes avec les forces de l'ordre mhm. est-ce que ñoom la ñu amal problème est-ce que état bu Sénégal lañu amal problème kan moo war a régler problème bi ak naka la ko war a régler ce qui est constant mooy il y a un problème ci côté boobu mhm. beneen bi mooy agressivité beeg euh, bavure policière yeeg donc du du nga ne da nga koy da nga koy rafetlu. Mhm. mais il n'y a pas un pays où il n'y a pas de bavure. Mhm. quelle que soit sa dimension euh, proportion bi disproportionnée ou proportionnée. Mhm. il y a forcément des erreurs parce que bavure erreur humaine la nit day day day euh, donc lu tax ma ne nañu spécifier euh, observation bi ci couche boobu xëy na. d'un coup d'une pierre d'un coup nañu réglé waa deux problèmes mhm. dina nekk loo xamante ne day nekk une réalité sénégalaise mhm. parce que Jakarta aujourd'hui y a que à Dakar que mhm. lañ ko amul dans toutes les régions du Sénégal c'est un moyen de vie hein, c'est un moyen de locomotion sénégalais dañ ko utiliser dañ ko soxla quoi qu'on empêche ñu ne xale yi bu ngeen dawal amuñu ay sécurité tout ça c'est vrai mais le constat la réponse Euh, cinglante moom mooy que population yi dañuy utiliser jakartaay pour dem donc c'est un besoin social qui est là mm-hmm. donc lu ma yaakaar mooy il est temps aujourd'hui qu'on s'arrête sur la question pour régler ko. il faut pas être euh, exclusion baaxul. parce que day dem ba am benn sentiment de frustration. que ñoom ñi ngi yëngut si wàllu euh, Jakarta yooyu par exemple. Euh, xalaat ni ñoom dañoo bokkul ci Sénégal bi. pourquoi on les encadre pas. pourquoi on les accompagne pas. et que ñoom li ñuy def dans la finalité Pape Djibi mais c'est c'est yow mii yow ak man ak colonel. doo toog yor sa benn Jakarta muy moyen boo xamante ne di nga ci dundal sa ndey. dundal sa baay dundal doom. nga toog di di c'est un besoin vital. C'est ça. Donc qu'on revienne euh, à la norme. Mhm. et qu'on qu'on qu'il y a un problème véritablement et que ce problème. war nañ ko dañ ko dañ ko war a régler. Euh, colonel lenn li nga xamante ni bëgg naa la ko laaj suñu suñu te xawee ci wàllu maintien de l'ordre wala rétablissement de l'ordre yow yaa xam euh, terme yi bu technicien yow mi nga xamante ni yow yaay technicien tey ndax sentiment de défiance parce que dañuy revenir toujours ci li xewoon Saint-Louis ñu gis jàmmaarloo bi ni mu méttee sentiment de défiance boobu lan moo koy indi ak lan la mën a jur waaw ah, léegi damay jëkk a revenir sur li Papis wax mm-hmm. parce que Papis li mu wax mm-hmm. mën naa si d'accord en partie mm-hmm. mais lu bari itam mën ma si d'accord <laughs> c'est-à-dire un état un état dañ ko war a structurer un état dañ ko war a structurer. te structuration boobu xëy na tey mooy problème yi nga xam ni dañ ko bàyyeeg police bàyyi ko gendarmerie. te problème yoo xam ne ay réponse état la. ay réponse état la moom Jakarta la wax. mais man je prends le transport en général. xëy na Jakarta yi c' est un peu à l' intérieur du pays. mais fii biir Dakar. clando yi la biir Dakar taxi yi la biir Dakar. car rapide la yëpp est-ce que ñu ngi au normes dakaar moo ëpp taxi Paris quelle que soit la population li am dakaar ci taksi amul fenn dans le monde ni clando yi di dawee xam nga c'est un besoin effectivement. Mm-hmm. nit ñi mm-hmm. dañu bëgg a déplacer wu donc c'est normal. Mm-hmm. que ñu jël ay clando c'est normal jël ay taxi. c'est normal jël ay car mais malheureusement dafa amul structuration on le ça aux policiers aux gendarmes. est-ce que loolu day jur ñoom ko loolu day jur insécurité. loolu mooy insécurité bi. Mhm. la base insécurité totale bi loolu la. lan ngay préconiser yow. Euh, non cest dire li ma la wax mooy structuration. waaw dire un état. Mhm. un état dafa war a jël ay mesures dafa war a structurer. Mhm. police mën appliquer gendarmerie mën appliquer. mais comme li Papis wax bu ma ko dégloo rek. dam naan donc c'est normal ñu bàyyi. clavier Papis dit la même chose dafa wax ne. loolu dafa wax ne structure bi taxaw seetlu bi ci état war a def dëgg. waaw mu ne moom loolu la ñu war a dee seetlu ko ba pare faj ko. waaw parce que bu ko fajul kenn du ko faj. exactement c'est-à-dire état da ko war a faj. Mhm. c'est-à-dire aujourd'hui état bi waruñu toll Dakar fi ñu tey ñu ne bon. Euh, clando yi pexe dañu war a bàyyi clando yi donc ku nekk jóg jël sa oto ne bon man si laay suturlu si laay lii si laay laa ça mhm. veut dire que y a yoo xam ni xëy na du tey loolu mooy suñu problème mhm. y a d'autres problèmes lu tax nit ñi war a jël seen seen seen ay oto rek ne dama koy def clando dama koy kii. Mhm. alors que transport c'est un service public. Mhm. qui appartient à l'État État bi da koy concéder peut-être à des privés. Mhm. donc aujourd'hui il faut que structurer ko. mën a xam ni ku yore sa clando tam. mais boo dajee ak gendarme yi au moins am nga papier yi nga xam ni. minimum pour nga mën daw. y a un autre boo xamante ni bala ñu revenir ci li nga xam mooy défiance bi ma wax léegi par rapport ak euh, force de sécurité yi ak ñeme bi ñu leen ñeme ba nga xam ne dafa mel ni dafa am benn mythe buy daanu wala collaboration bi ñu doon xaar ci seen diggante ñoom ñaar mën na bañ a dañu am aussi loo xam dañ koy soupçonné papis ba ci bi xew Fatick soupçonné nañ ne ay vecteur la yoo xam dañ ciy jaalale. yi nga xam dañ koy tere maa lu ciné barak yooyu loolu tamit euh, ndax tey jii police am na ci wala gendarmerie wala force de sécurité yi am nañ ci suffisamment d'éléments parce que tuuma yi gën a dal seen kaw loolu la. xam nga xam nga boo jëlee police jël gendarmerie. vraiment police Sénégal gendarmerie Sénégal da nga leen di remercier en termes de maintien d'ordre. Mm-hmm. parce que maintien d'ordre même dans les pays développés. Mm-hmm. Euh, gis nga li xaw France ak les gilets jaunes avec les ceci les blessures il y a des blessures profondes mhm. yoo xam ne tey ñii ña nga dem tribunal police ña ngay enquête ñu naan ñi lan ma leen blessé grenade ñu utiliser mhm. alors que fii mais suñu police bi reyul nit suñu police bi gaañul ay nit gaañ yoo xam ni tam mën nga ne vraiment y a une violence des forces de l'ordre mhm. forces de l'ordre yi vraiment pour man technique la ñuy wane engagement la ñuy wane détermination la ñuy wane. Mm. du dëgg et problème yi ñoo bari. Mm-hmm. problème yi ñoo bari problème ñu récurrent yoo xam ni. c'est il y a des réponses policières. problème alors que réponse yi du lan la par exemple. yi nga xamante ni policiers yi ñoom ñooy payer les pots finalement yan la par exemple bu ko énuméré. le le je prends le problème de Saint-Louis. Mm. bi gouvernement bi taxawee automatiquement le problème il est réglé. le ministre là, il est parti, hein, on le remercie au passage, il est parti, il a fait la Mauritanie. Il y a une diplomatie qui été mise en œuvre. On a, bon, xëy na waruñu xaar ba problème yi am ñu soog jóg. dégg nga ministre bi problème bi on en parlé on en parlé mais bi gouvernement bi pare xam ne lii mën na jur leneen dañ ko réglé. les licences ont été réglées plus ou moins les amendes ont été réglées. dégg nga en même temps il faut que tam nos populations ñu tenir leen les langages langage de vérité mooy mais mënuloon na tëb rek ne da ngay dem pêche ci état jàmbur suñu état ñun Sénégal suñu maire la marine est là ku fi dugg dañ lay jàpp ñooñu tam yeneen pays la ñu jóge pour ñëw. suñuy ressources dañ leen di jàpp. loolu dafa am importance. xam nga mu ngi wax léegi euh, colonel. on est en phase ah xëy na ni ñu ko waxee. moo moo kiiwul mm-hmm. mais man damay ñëwaat si euh, fi ngay waxee léegi est-ce que clando yi maanaam laxisme boobu quoi bàyyi laisser mais bu ñu jëlee par exemple il se passe d'autres concurrences ailleurs par exemple boo demee euh, boo jëlee kaaw France récemment li ñu amoon problème ci transport bi mooy taximan yi nga xamante ne officiel di fay taxe yoo xam ne dafa wuute ak ñi nga xamante ni dañuy taxi taxi yoo xamante ni noonu la demee mmh. état bi xam na ko mmh. dàqule mais bu problème bi amee ba ñu créé grève mmh. xam nga am na aussi même covoiturage bi dafa am covoiturage am taxi privé ak yoo xamante ne officiel donc li ñuy fay en terme de taxe yemul ñee affaire bi dafa endommagé seen seen liggéey. Mhm. mais comment les gens ont réglé le problème dañu woote réunion. c' est qui a pris les en main. Mhm. ku nekk mu tracé la waatal la. Mhm. li nga xamante ni foofu nga war a yem. xam nga pas parce que Jakarta am dafa am insécurité. que dañ ko war a exclure. on peut l' organiser. bien clando yi Jakarta yi on peut le en sorte que parce que boo ko état wala gouvernement bu fa génnee loolu par exemple. clando nga génne fi jàkkaarloo amul leneen lu mu ci def. amoo loo fa def. qu'est-ce que tu vas proposer aux populations. donc c'est un mal parfois nécessaire ou à rendre nécessaire pour man. Mm-hmm. donc il faut que ça soit sur la table et qu'on le règle de façon définitive. léegi léegi colonel je pense que ne loolu moom dafay interpeller les autorités parce que man damay def observation bi mais dëkk boo mën di dem. Mm-hmm. ngay gis ne systématiquement jakarta yi ñooy ñëw. Mm-hmm. proposer seen bopp. leneen li ci gën a inquiétant leneen li ci gën a inquiétant mooy ay xale la ñu doon ci Sénégal leneen li ci gën a inquiétant mooy du ñu sàmmonteeg les normes sécurité boo demee fii hôpital régional bu Thiès dañ lay wax ne dañ leen mujj wutal bloc à part boo xamante parce que chaque minute am ku ñëw am ku nit ñi ciy dee c'est extraordinaire est-ce que dafa nekk une solution boo xam définitive wala ndax dafa nekk loo xamante ni dañ ko war a xool réglementé ko wala sax am benn plan boo xamante ni pour ñu dindi ko la parce que pour man du solution boo ah, xamante ni mën na nekk dans la durée dans la durée il faut penser les enlever ça loolu dans la durée c'est pas l'idéal quoi c'est pas l'idéal maintenant comme Papita dit mm. am na ñu bëri ñoo xam ne amuñu laleen lu ñu def mm-hmm. si lu ñu mën yëngatu un gouvernement moo ko fi jëloon tam mm-hmm. aider les jeunes à acquérir rapidement des Jakarta et consorts mm-hmm. pour ñu génn si entrepreneuriat rapide la voilà <laughs> entrepreneuriat rapide le financement boobu. ah bon je <laughs> mais léegi léegi tam il faut que mu am un minimum de réglementation. Mm. minimum de réglementation mooy ñi am Jakarta. Mm-hmm. déjà ñu am ay normes. Mm-hmm. respecter code de la route. ñu def peut-être ay permis moto dootoo rek dawal kii ay permis moto dafa am. dégg am ay normes dégg nga ñu defal leen ay numéro ñu obligé leen ñu sol ay casque sol lii sol laa mais boo xoolee le problème d'hier ay na xale bi dañ ne dawkatu ja dawalkatu Jakarta la mm-hmm. mais li leen police reproché mm-hmm. d'après li ma lire ci presse bi affaire drogue la dañ leen fekk ñuy kii drogue bu fekkee dañ leen fekk ñuy jël drogue il est anormal police jàpp leen ne di leen di yóbbu di leen dóor mm-hmm. loolu moom c'est intolérable dee bi daal dara justifié wu déedéet non waxuma sax de mais jàppaleen leen déjà boo jàpp ne da nga koy police. exactement amul faneen foo ko mën yóbbu dafa am ay lieux prévus pour ça moo tax loolu y a une enquête exhaustive que les autorités la police doivent mener pour avoir une solution à ces problèmes là moi je compte toute bavure policière. dégg nga c'est-à-dire bavure fu mu amee il faut qu'on dirait que fu mu amee rek fu mort doom amee il faut qu'un tribunal se prononce. il faut que ñu enquête. xool les conditions seet ndax les policiers qui ont fait le ont des faits justificatifs et en ceci en cela parce que ça peut arriver. Mhm. la violence de la police là c'est une violence d'État. Mhm. c'est autorisé. monopole de la violence conditions mhm. c'est le monopole de la violence. mais nag fu fu dem ba dee am tam il faut que la justice se prononce. pour man noonu laa ko xam. kon liggéey justice moo ci des. leneen question bi ma posé woon Papis bala ngay ñëw mooy par rapport ak la défiance bi nga xamante ni gis nañ ko est-ce que loolu lu normal la wala ndax fait mondial la wala. man loolu si loolu justement parce que ah. yaa ngi wax léegi affaire boobu ñeme bi ñuy ñeme. Euh, kii parce que on a vu ce qui s'est passé à Saint-Louis. lu ne mënoon na xew seen. waaw dafa am Mbour également. Mhm. Mbour Mbour dañ leen dàq ba ñu daw d'ailleurs donc euh, ñeme boobu. Mhm. c'est une réalité il faut ñu tenir ko en compte de plus en plus en tout cas pour le cas du Sénégal mais colonel yow euh, ngay spécialiste boo xoolee par exemple les images que nous avons toujours vues mhm. sur les manifestations à l'étranger mhm. dans les grandes démocraties da ngay gis parfois da ngay xaw a jaaxle parce que physiquement di agresser un policier mhm. mais très souvent la réaction n'est pas n'est pas n'est pas aussi violente waaw euh, dañuy naxante à la limite pourtant il a des arrestations parfois mu pare nga dégg ay 300 200 mm. mais lan mooy def différence boobu aujourd'hui c'est quoi la différence <laughs> yéen a dàq dóor ah yéen a dàq dóor gars yi ah honnêtement <laughs> non honnêtement c'est-à-dire cest à Euh, police honnêtement. non je veux qu'on soit dans la peau du flic entre guillemets. waaw positivement parlant pour qu'on puisse comprendre pourquoi il y a a cette différence là. c'est ça que je veux faire moi-même je suis spécialisé maintien d'ordre li ma liggéey gendarmerie li ëpp d'ordre la man je suis vraiment gendarme mobile. pas enquêteur yooyu man gendarme mobile la. dégg casser des grèves ceci cela loolu. je sais faire donc doublement une voix une voix autorisée kon kon yàgg nga dóor ah. je euh, vraiment jàngal lañ leen jàng boo xam ni xam nañ li ñu war a def dégg nga léegi wax naa la la police comme la gendarmerie ne peut pas régler tous les problèmes te fii dafa bari ay problème dégg nga manifestation un régime. de manifestation il y a les lois yi prévoir ceci cela le refus systématique des manifestations amène la violence pour man. Mhm. il faut que état bi tam yenn yi di ko tolérer toutes les marches yi ñu programmé. génn ci ceci ceci. y' mhm. jamais de problème. mais ni ñi tam des fois il faut leen laisser s'exprimer l' expression est nécessaire. Mhm. dégg nga parce que boo leen bàyyi ñu exprimer c' est là la violence se met en place dégg nga et cette violence là. bon la police jusqu'à présent arrive à contrôler en tiré wuñu si ay nit gaañu ñu ay nit gaañ yoo xam ne tam y' a beaucoup chaque jour Dakar maintenant y' a des manifestations étudiants ceci cela mais déggatuloo ñu ne non rey nañ étudiant dégguloo ñu ne gaañ nañ étudiant yóbbu ñu ay étudiant hôpital dégg nga actuellement policiers yi ñoo gën a mm-hmm. même si tu prends à Saint-Louis réellement y' a trente policiers qui sont blessés ça veut mun nañ mm-hmm. waaw léegi et là on n'en parle pas. on n'en parle pas. dans l' exercice de leur fonction. mais léegi loolu est du posé parce que gis nañ ci France ci gilet jaune gis nañ seen syndicat bi ni mu porté le combat. waaw daal ne il faut que politique yi aussi à un moment donné ñuy bañ di jël policiers yi di leen dóor ci kaw population yi. léegi foofu est ce que tey jii tolluñu foo xamante ni aussi. cette grande muette là entre guillemets day toll foo am dina am nag ku ko waxal ku ko mais xam nga attends man. Euh, attends <laughs> c'est pas me jeter des fleurs hein. Mm-hmm. mais ku attaqué gendarmerie police je suis en face mm-hmm. je les défends. Mm-hmm. quand quand l'histoire du commissaire euh, de parcelle la Sangaré moi j'étais le premier à parler. à dire le commissaire Sangaré il y a des il faut un peu de de de justesse. dégg nga man nit laa moom tam nit la. nit ku nekk comme Papy disait tout à def erreur xëy na euh, nga nekk policier nekk commissaire avec tout ce que ça représente nga ñëw humilier la comme ça si tu n'es pas très très kii solide mentalement tu peux réagir mm-hmm. dégg mais il faut que les policiers les gendarmes chaque fois je reviens sur ça c'est la formation gis nga armée li li important lan moo am ci formation li important c'est armée mm-hmm. armée li ñu njëkk def mooy dañu toj sa xol mm. trois mois trois mois foo mënti ne formation armée boo mënti def dañuy toj sa xol dañ koy toj dinañ la defloo defloo ay affaire yoo xam ni ba nit ki di nga ne souffrance foofu la mën yem. kenn mënatu la def lu loo xam ne après à part de. Mm. kenn mënatu la def certaines souffrances. loolu nag il faut que nos policiers là nos gendarmes là. est-ce que formation bi dafa am dafa des na des na mënu c'est-à-dire mën nañ jël 1500 gendarmes 1500 policiers. parce que parce li ngay wax ni parce que parce que li wax ni li tax mu am solo mooy boo seetee ci yeneen réew yi tamit papis da ngay gis ne action du doo gis ci ci ci ci benn attroupement doo gis action isolée waaye fii da nga benn jeune policier boo xamante ni day dem fight carrément moom rek te xam nga lu ne mën na jeexew action isolée action isolée ngay jàpp est-ce que mën na jël day <laughs> lu day bëgg a génn dem mais est-ce que tey sunu police wala sunu gendarmerie egguñu ci war a am syndicat bu leen di waxal non non non non ah attends je vais être honnête hmm. je vais être honnête les euh, l'armée la gendarmerie là Euh, il est impensable sax ñuy wax ay syndicat. Ah, lu tax mais police. Euh, ah, mais police waaw lan moo tax waaw. dégg nga c' est impensable. Mm. c' est impensable ah c' est ni mu structuré c' est un don de soi. c' boo demee buy dugg armée c' est un don de mm-hmm. nit ki j' ai l' de dire mm-hmm. euh, man officier la lii sama formation lii sama kii mooy commandé. Mhm. commandement boobu lu nekk daf ma ciy fekk. Mhm. lu nekk daf ma ciy fekk ndax il est arrivé ma ne nit avancé ñu dóor ko bal mu dee. ñeneen dañ may xool ma ne keneen avancé mu avancé loolu tam responsabilité la. Mhm. responsabilité dafa bokk ci liggéey bi. dafa bokk ci liggéey bi lien la personnel entre man ak moom. donc man. li am importance mooy sama soldat yi am confiance ci man mais man tam ma wan leen chaque jour fu mu mën di toll lu mérité ñu am confiance man. loolu mooy lien entre l'officier là et le soldat. lien boobu du ay syndicat du ay loolu mënu ko. la police amu amu amu amu ci dara. police nag police Sénégal ñun tam dañu def choix Sénégal moo def choix ne sama police c'est une force paramilitaire. donc les lois militaires là sont applicables à la police. ay soldats lañ daanaka. dégg nga du ñu soldat totalement. Mm-hmm. Mm-hmm. mais pratiquement euh, justice militaire day dal seen kaw y a beaucoup de dañu am ay disciplines yoo xam ni comme armée bi la. loolu tam c'est un choix de l'État. Mm-hmm. choix boobu nag moo est-ce que ñoom tam ñoo war a am syndicat. mais mais il faut que biir police bi. mu am ay organis ay organisation am tout cas armée loolu dafa am. armée dafa am président des sous-officiers. dafa am président de kii dafa am ay nit ñoo xam ni am nañ assez d'expérience boo xam ne ñeme nañ jano colonel bi na ko moo colonel li nga def du noonu. te dara leen si fekk. dégg am nañ ay services ci biir armée bi yaa. la protection du moral. loolu loolu mooy loolu service bu ëpp importance boo xam ne chef d'état-major bi la dépendre directement. wala si haut commandant gendarmerie. ñooñu ay inspecteurs la ñoo xam ni ñooy inspecteurs de sécurité yi. ñooy veiller à ce que règlement militaire la ne souffre d'aucune d'aucun manquement. dina am. bu fekkee benn officier dafa détourné xaalis la soldat yi di murmuré naan kii def na lii def mais dañ koy bind. waaw te une enquête se met automatiquement. benn laaj euh, par rapport ak. Euh, euh, évolution société bi ni man li ma bëggoon en tant que expert nga jàngatal ñu. parce que Pape tudd na ko sànq mooy ñeme bi ñeme bi. mooy défiance boobu xam mooy. tubaab <laughs> défiance boobu question bi rek boobu la tey mais mais léegi léegi <laughs> war a motiver. lan moo ko war a motiver sénégalaisement parlant on sort toutes les autres armées toutes les polices toutes les populations. on se cantonne sur le cas du Sénégal mhm. est-ce que yow déjà constaté woon il a une défiance de plus en plus accrue. et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça. police ak gendarmerie. waruñu ñàkk fayda ñàkk fayda mooy la corruption. Mm-hmm. ku la corrompre yeb na la. Mm-hmm. ku la corrompre ku la jox 1000 francs nga jël ko yeb na la. Mm-hmm. ku xam ni yow dama am problème mais mën naa ko régler lii dul yoon yeb na la. donc loolu yëpp tam ay normes dañu war a teg ay normes. teg ay normes ba nga xam ni. mais lan moo tax ñu leen ah, non lan ñun sénégalais yi la. Mhm. du police ak ñun la. Mhm. ñun sénégalais chaque fois nga wax corruption am na corrupteur. Mhm. sénégalais ñoo def ne lépp dañ ko war a lijjanti. police bi ak gendarmerie bi tam si ñun lañ bokk. benn lañ. c'est les mêmes personnes. ñun war nañ leen éduquer war nañ toj seen xol. ba yenn yi. duñ si dugg wala yenn yi duñ si def. loolu bu amee rek da ngay gis ni la la discipline doit permettre réellement de répondre à. défiance ngay wax une force quand elle est structurée quand elle est solide quand moralement euh, l'impact se fait gars yi duñ la ñeme. maintien d'ordre souvent. comme il dit c'est les cas isolés ñoo ñu indi problème ñoo ñu indi problème violence mm-hmm. mais s'il y la masse compacte mm-hmm. taxaw war a taxaw ni ñu war a taxawee automatiquement Sénégalais yi respectent ça oui est-ce que foofu aussi amul problème par rapport ak effectif bi est-ce que a assez d'effectif ah, je suis contre ah. <laughs> le matériel le taux d'effectif là ah, pour man y d'effectif mais quand le répondre aussi question bi de par rapport ak défiance bi yi ñi ñemee gars moo koy expliquer li leen ñemee waaw parce que ñoom ak population itam ñoo yem c'est-à-dire valeurs yi valeur sociale itam dafa évoluer mm-hmm. valeur sociale yi dafa évoluer internet bi dafa évoluer du dëgg euh, et facilement facilement y a trop de critiques mm-hmm. cest à kenn du xool le professionnalisme de la police man loolu laa loolu mooy sama sama problème mm-hmm. dégg 80 pour cent 90 pour cent des crimes qui ont été commis ces temps-ci. affaire yu graaw. dégg nga boo jëlee l'américain qu'on a tué boo jëlee la Ndiobala qu'on a ak yooyu yëpp tey police résoudre na ko kan moo ko wax. lan la police def ba résoudre ko kan moo ko félicité kan moo ko encouragé crime yëpp am yëpp man crime yi nga am yëpp police tey. jàpp nañu ko def. mais xaaruñu ci waa góor don de soi non tam da si baax. Ah. waa góor da si baax dégg nga li ma la nii c'est important waa góor tam da si baax. je crois suffisamment motivés par exemple. voilà il faut les motiver davantage. bu ñu toogee ñu xool daal ne waaw ah y a euh, voilà y a des bavures. Mm. mais y a moins de bavures. de plus en plus actuellement là y' a moins de bavure. mais am na temps yi loo xamante ni aussi wax nañ ko lu bëri c' vrai on peut dire que y' a de bavure mais tey jii euh, sentiment d' insécurité bi nga xam surtout fan yi ñu génn ci ginnaaw ñu dégg rey nañ fii nit rey nañu tudd nga léegi Mouhamed Cissé est ce que insécurité la wala sentiment d' la. sentiment d' insécurité la. lan moo ko indi. sentiment d' insécurité parce que euh, soo xoolee y' a une criminalité kenn du wax ni amu fi. il y a criminalité criminalité bi il y a plusieurs aspects aspects li gën a grave tey mooy peut-être ay rey yuñ gis mais ay sénégalais ñooy rey loolu c'est plus un problème de valeur en problème de perte de valeur dégg nga nangu benn saagu femme wala kii benn femme jam ko paaka c'est inimaginable au Sénégal pourtant loolu mooy suñu réalité est-ce que la réponse est seulement policière oui la réponse est policière mais. Euh, il y a beaucoup il a d'autres mhm. xam ne tey il tam. foofu ñu gën a lëkkaloo voilà très bien euh, ñoo ngi doon dalal ñi nga xam ñoo ngi ñuy topp boobu ba tey depuis 19h ñoo ngi doon dalal colonel Abdou Aziz Ndao nekk expert euh, consultant ci wàllu sécurité. doon ci ànd aussi ak Papis Diaw balaa yàgg ñu daal di ànd ak Cheikh Diop ci li nga xamante ni moom mooy faram-fàccee xibaar yi ci wolof ci juróom-ñeenti waxtu.